أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñi ngi sant yàlla tabaraka wa taala ci boole bu ñu booleel ci jotaay bi nga xam ne jàpp nañ ne barke kese la ñu ñëw aussi fekk fii suñuy mbokk suñuy xarit suñuy soppee suñuy am di jàmm suñuy wëllëre suñu lépp rawatina nag mbokk bi wàcc léegi 16 bi maa moom ñoo bokkoon benn classe ñoo bokkoon benn classe bi ñu jàng moo ngi ni toog waaw ñoo bokkoon benn classe alfala ak koy fàttali alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax ma ñëw aussi wax dëgg yàlla fekk ko mu doon traité thème boo xam ne moom la ma mbokk yi waxoon jéemoon naa leen sax ne nañ ko def avant seen programme bi waxoon naa leen nañu changé date bi def ko avant 24 ndax ñu mën a fàttali jullit yi 24. dama doon préparé xutba juma suba ci 31 décembre comme 24 passé na ma duggee ci Google di utam yi. ma dajeeg benn hadis bu Abu Hurayra ci yenn riwaaye yi ci yenn riwaaye Abdullah ibn Abbas borom bi tabaraka wa taala di wax ci hadisul kursi doomu aadama daal daf ma saaga doomu aadama daal daf ma saaga te wax dëgg yàlla wa maa yambagi lahu an yashkura doomu aadama daal saaga na ma te wax dëgg yàlla yellul fi ma jaar ak moom mu may saaga dafa mel ni dañoo laaj yàlla waaw yow yàlla nan la la doomu aadama saaga mu ne def ma utal doom te aw ma soxna moo tax ñu ñëwee mën leen est-ce que duñu duñu duñu taajil bis bi ngeen def ko 24 ngeen def ko ci bedd mi ndax ñu waxtaan ak jullit yi mais ba tey sant yàlla rek bi ma yégee ne passé na aussi te changé wuñu dal bi ma ni kon naa dellu ca thème bu ñu proposé woon muy tarbiya bi ma ñëw fekk doomu ndey bi aussi wax dëgg yàlla fàttaliñ ci loo xam ne buñ ci yemoon rek dana doy mbokk yi yar ci mbir yi ëpp importance ci lislaam yar ci la bokk waaye yi ëpp jafe-jafe ci la bokk lan moo tax dañu war a fexe ba nit jubóog yàlla loolu yombul de loolu dafa laaj ay yitte gis ngeen tey daanaka feebar bi fépp la laal xataa ci ñun ñi xam ngeen ne man mi niñ ma yare woon yarewuma ko sama njaboot yéen ñi toog ku nekk niñ la yare woon xam ngeen ne yaroo lool sa njaboot te nag wax dëgg yàlla mu nekk ñàkk sens léeg-léeg ma wax sama waa kër na ngeen bàyyi xel ne yéen amu leen droit waxuma sax di def ay caaxaan waaye di nuroog ni ci mbedd mi maanaam man tey awma droit erreur yi ma jot a dugg avant may gis sunna samay doom lu ci dugg ñun ñu toog fii yëpp suñu yaboot ci alxuraan ak sunna lañ jël est-ce que jaadu na kon suñu doom di def erreur di nekk rappeur di nekk simbukat di nekk gaynde wala wala wala nuru xale yi ci mel ni jaaduwul loolu nag dafa laaj programme dafa laaj tabax jiil multazim mu'min xeet woo xam ne bu dee ay jigéen lañ xataa bu ñuy nelaw seeni kol day nekk seen bopp jullit yu góor yoo xam ne saa ñu liqaamee ci jàkka ji su imaam sëlmalee gis lañu ñu toog ñun génération boobu la ñu war a formé su fekkee xam nañ dëgg-dëgg lan mooy tarbiya wallahi benn mbokk daf ma woo France motul une semaine barki démb doom ci ci ci weer wi ñu nekk ni ci affaire 24 yi ñaari doomam ñoo jàngi ñu ñëwee maîtresse bi ne leen est-ce que yéen am ngeen cadeau ñaari xale yi na ko déedéet ñu ne amuñu cadeau de mu ne leen est-ce que génn ngeen ngeen xool asamaan Père Noël jox leen cadeau benn xale bi ne ko ñun ki ñu jàng mu dëkk asamaan tuddul Père Noël maîtresse bi ne teg xool xale bi mu ne mag ji wax ko kan la mag ji ne ko allah kooku dëkk asamaan waaye du Père Noël loolu tarbiya la loolu li nga defe ne toog toog bàyyi sa doom ak télé muy saraan Père Noël nga xam ne hatta moom ci boppam sax yow ci sa bopp sax bu la woon téléphone ne la tey dañuy jox sa doom kado yooyu yaay njëkk a sangu ak sa kaala dem jëli ji kado boobu loolu mbokk yi liggéey la gis ngeen lii mbokk bi doon waxtaanee léegi muy lii ñuy sof ni suñu wax waaye sa ba dafa jafe li tax li anna tarbiya bi haaja ila wa'yin wa saqaafa wa ilmin bi usuli tarbiya lu yomb de da yaakaar nga naa xale bi jëfal julli nday muurul ay yéen baa jàngi ngeen ku ngeen di lekk bisimilah ngeen di wax di yéen baa ah loolu doo mën a trop loolu dafay teel ak ñun loolu lay doon loolu la jàpp ne mooy tarbiya non du loolu dafa jafe dafa laaj compréhension waayi kii yar dafa laaj mu am waay mu yeewu comprendre adduna bi xam dëgg lan moo indi nit ci kaw suuf waayi waaye saqaafa dafa laaj jàng tey ñoo ngi ne ñun am na ñoo xam bi ñu dund sunna ba léegi avancé wuñ ci laawa boo ko indee duñ ko liir ci la mu ñu avancé ci diine góor ak jigéen nag du ful ko teg ñu ne ñun dañu bëgg a wuute yonente bi ci alayhi salaatu wasalaam ci kaw suuf dañu war a jàng dañu war a am culture mais kenn ci ñu nangul déplacé wu suñu usra yaa ngi nii di nelaw góor ak jigéen man damaa découragé usra bi ma bokkoon damaa leen doon jàngal ki leen di jàngal def sacrifice ñiy jàng si duñ def sacrifice ngeen defaan dañuy jàng sans diine xam yàlla sans diine xam mukk ko téere bu ndaw boobu rek ñu jàng muy usulu salaas masaa il yi mu njëkk indi bu ci njëkk lu mu wax koo koy fàttali al ilm al ilm loolu la déparé xam-xam mukk yi ku amul xam-xam nooy jaamoo yàlla ku amul xam-xam nooy yare ku amul xam-xam nooy bokkee dafa laaj compréhension bu bëri laaj culture laaj nga jàng xam usulu tarbiya wa qawaidiha nga xam kenoy yar fan nga koy teg waaye bu fekkee ne loolu amul dañuy nekk ay taxankatu guddi yuy làmbatu dañuy am ay doom yoo xam ne vraiment li ngay yëngatu sax ñoom ñoo koy njëkk a compte te nag day nekk pàkk ci yow dafa am benn borom xam-xam boo xam ne dafa am ku doon yalwaan fajar kër gumba gi ñëw di yalwaan lu waay man di yuuxu xale bi wàcc rek daal di koy bëmax gumba gi bërimu ci escalier yi ba ci suuf daal di tëdd papa ji dégg biir bi rek daw ñëw borom xam-xam bu mag la mu ñëw gis gumba gi tëdd mu ñëw yëkkati ko rek daal ne yàlla baal ma yow yàlla baal ma maa ngi lay jéggul ndax kii def lii man nga ko joxoon pour ma defar ko ba du def lu mel nii comme def na ko nag ni nga ko jaarale moo baaxul ndax su ma ko jaarale woon ni nga bëgg su gisee kii du ko def nii e yàlla baal ma man maa indi ci société bi ku leen di lor au lieu de ku leen di jëriñ wala boobu ne mu déggee boppam la critiqué moo tax dañuy wax suñu doom yi wala fi nee nañ këwél du tëb doom jooy bët gis nga li ñuy jooy ci sunu doom yi ñun ñii la du xale yi de waaye bal ñun la nañ xool suñu bopp ku sa doom yaruwul ku sa doom nekkul sumit ku sa doom muurootul ku sa doom di cëkkal kol ku sa doom di kiris karas ku sa doom di bënn nopp bul la yedd kenn yow la yaa deful sa liggéey ñun kan moo ñu jaarale woon ci ko ci boor yooyu mbokk yi yéen ñi toog fii nekk ay mag kan ma leen fa jaarale kenn waaye da ngeen a ñëw gis mbir mi xam ne fi ngeen nekkoon du loolu ngeen jàdd góor-góorlu commencé di jël dëgg gi ba ngeen mel ni ngeen mel lu tax noonu mënuñu ko jaarale suñu doom yi bal defuñu effort ñun effort yi def suñu bopp pour ñu baax ñun defuñu ko ci suñu doom yi te nag loolu moo tax waa ji ne yar du noonu rek كان الآباء إلى فهم أفضل لتفكير الأطفال وميولهم وحاجاتهم المتنوعة فو وامي أي دوم جرى الله بيانا لو قدي لتيت سدومي نويدا بنجوبوك يالله dana la jural ay xalaat dana la jural ay programme ci kër gi dana la jural programme lu nekk ngay fexe nooy defe ba xale yi baax dañoo am xale jardin ci 24 bii nii 24 daaw la xaw ma daawati jéeg la xaw na yàgg tuuti chaque 24 dañ leen defal ay programme jardin laa wax de waxuma élémentaire pour ñu bañ a bokk ci feeg yii am na ci benn xale boo xam ne comme le 25 tey dafa xëy di jàngi parce que ñu sax jàng nañ tey bi mu koy jël saagam sang ko ba pare mag yi di ko tooñ comme bokkuñu fi ñuy jàngee naan ko amu leen feet amu leen feet amu leen feet waxul dara mu som sàkk de génn papa jaan ci kaw balcon bi xale yi daal di jóge ci suuf yéeg ci kaw rek pour lan jàkkaarloo moom pour tooñ ko dem fekk seen baaba ci kaw mu naan leen lan la ñu naan ko Ibrahima la ñuy tooñ amul feet bi ñu commencé di yuuxu amu leen feet amuloo feet mu daal leen di gestu ne la ñun jullit lañu. am na xam Papa ji nee na tuuti ma jóge ci kaw balcon bi wadd ci suuf tuuti ma jóge ci balcon bi wadd mu ne damaa mujj toog ci sees bi mu ne sama rongo ji génn ma xam ne benn kurpeñ la ma dóor ci sama dënn bi mu ne ñun jullit lañu waaw loolu dafa am lu laaj ni foog ñu dellu foofu mbokk yi formé waa suñu doom yi. jàngalaat leen yaraat leen waaye du nekk nii rek affaire tappale yi ñu def di tricher bu ñu la nee muur nga dem jënd benn kóol juróomi dërëm la ko da ngay yow mais sori yooyu dafa yomb balaa ngay wax dara ci diine xaar julli jot nga dégg ñu doog a doon nga dégg nga doog a dem sa yenn saa yi doo yóbbaale sax jàkka ja yooyu laa wax ñun la i xotal iman inna kasiran min al aba wal ummahat لا يشعرون بحاجة إلى ثقافة تربية تساعدهم على على التربية وتعليم أبنائهم مما يجعلهم يقعون في الأخطاء فاحش bokk jullit yi lu bëri ci ay ndey ak ay baay du ñu yëg ne danger moo leen fiir te échec la ndey ak baay bu juddoo ci alquran ak sunna ñu yaaxuus ba seen doom di tarxiis di dugg ci yenn yi échec la pour yow te société bi dañu yàkkamti pour loolu gis doomu oustaz Saïd li mu ngi ne di way mu ngi ne di Chris Karas mu ngi ne bënu nopp mu ngi ne di simb dañuy kontaan xool ngeen Xalil Xuseyri bi mu génne àdduna gars yi dañoo dem mbaal doomam du xam ngeen Mahamud Xalil Xuseyri Seyxul Qura Égypte bi mu génne àdduna gars yi dañoo dem mbaal doom bu jigéen bi dugal ko ci danse yi mu yooyu xam ngeen ku ko def président de la république ak soxna mbaal ko mais mbokk yi bàyyiwuñ ko frère yi bàyyiwuñ ko ba génne wax xale ci affaire yooyu ne ko ku mel ne yow sa baay daan taxaw di yëngal diine yow nga taxaw fi di liggéeyal seytaan loolu warul mun nekk heureusement mu yëg responsabilité daal di dëppaat kon loolu dafa laaj yow mi nga xam ne yarkat nga nga moytandiku yoon yooyu nga xam ne yoonu njuumte la yoonu ñàkk a xam la ci tënk yu gaaw danañ jël tolloog ñetti tomb rek ñett yoo xam ne min ajli tarbiyati salima pour ñu mën a am éducation bu wér kën ci pour suñuy doom bu ci njëkk mooy xarsul qiyam ad diin ad diiniya wal axlaaqiya fi saxsiyati tifl dañu fexe mbokk yi ci aas bu ndaw bi xale bi ñu dugal ci moom diine ak ay jikko yu rafet xale bi ñu dugal ci moom diine ak ay jikko yu rafet fi mu nekkee xale bu ndaw ci façon lekk ci naan ci solu ci wax ci lépp fab ñu jéem a jëmbat diine ci suñu doom yi suñuy lekk suñuy naan bu ñuy tëdd bu ñu yeewoo lépp lu ñu war a def benn mbokk ci waa xuru ji la bokk doom daf feebar ñëw ko principal docteur bi jël puso bi di ko jëlal deret mu jam jam duggul mu jam jam duggul mu jam jam duggul mu changé beneen loxo bi xale mu bëgg a jam xale bi téye loxo bi ne ko est-ce que bi ngay jam wax nga bismillah docteur bi di xoolaat xale bi daal di woy papa ji ci biti waaw kii kii kii boobu mooy bëgg a jommal ah man de damaa seet loxo bi affaire yi ñëwul ma changé loxo bi mu ne balaa ngay jëm foog ma wax bismillah ko fan lañ ko jàngalee loolu bis boobu mu tàyyi fan la ko jàngalee mais nekkul na bis boobu lañ ko ko wax dañ ko yàgg a dugal ci moom bul def lenn ci kaw suuf lu dul nga tudd turu yàlla barki démb benn ngénte laa yendu jagsaaw ñu nekk ci débat yi di waxtaan benn mbokk daal di fay nettali pista boo xam ne benn waaye bu daan yar doomam ci du maa lay jox lekk mais yàlla moo lay dundal du man de loolu lay yar doom ci saa yi doom ji ñëwee rek balaa muy lekk tar ko demal nga jàppi nga julli soo ñëwee sa lekk a ngi foofu yàlla di moo lay jox lekk chaque jour loolu la xale bi def benn bis xale bi wàcc fekk moom nekk ko bi xale bi de ah comme yàlla moo may jox lekk sama yaay nekk fi naa dem julli ji dina ma jox lekk xale bi daal dem julli ñëw palaat bi daal di tegu yaay ji daal di ñëw ne ko eh daw jël taxi ñëw ñëw gis table bi tàkk mu ne ko déw mu ne ah mu ne ko waaw mu ne ko yàlla jox na ma ma lekk. allah jëlee yar la mais yow boo gëmalee sa doom ne maa lay jox lekk bis boo ko yaa ma dépasse nag. ñaar loolu la ñuy yare suñu doom yi fexe ba ñu am diine fexe ba ñu gëm yàlla. soo fi nekkee boo fi nekkul su la gisee bu la gisul loolu dañ koy jëmbat waaye du lu ñuy làmbatu lu am importance la ci xale bi xars xiyam addiiniya ak ay jikko xoolal tey sunu doom yi ni ñu ñàkkee ay jikko daanaka ñoo doomu mbedd yi ñoo yema tey ñun ñun dañu ne woon dañuy defar usra muslima looloo taxoon nga bàyyi ñëpp daal dem ut ku muuru mu bàyyi ñëw mu amit yow ut la lan moo tax mënuñu am loolu c'est parce que dañoo wàcc yoon wi dañoo découragé dañoo dem ba ci yàgg lu bon bari rek ñu ne ah ñëpp la ñëpp a yem léegi amul problème sikkim yëpp a lakkandoo loolu ñun te responsabilité la wallahi li ma fekk mbokk bi di wax ci ñun ñëpp nag wallahi bu ñu fexee ba suñu doom yi jàdd danañu lay ak yàlla aaya bi mu wàccee qu anfusakum yaa ayyuha allazina amanu la yàlla qu anfusakum lu ci nekk wa ahlikum ñooñu ñan la wala doom bokk ci boobu aaya bi mu wàccee dafa am saa bu yendu di jooy gars yi ñëw ci moom ne ko looy jooy mu bañ a toon ñu dem ci yonent bi ne ko diw ba mu fi jógee barki dem ba léegi mu ngi jooy yonent bi ne woo leen ko ñu woo ko mu ne ko yow lan la dégg naa yaa ngi jooy ñaari fan mu ne ko waaw waaw lu ko waral mu ne ko ajastu an nafsi wa kulliftu an ahli man sama bopp mënumaa dugg àjjana yàlla jël sama njaboot teg sama kaw loolu mooy man du ma dugg walal man sama bopp maa ngi góorgóorlu ci jaamu yàlla li may def xeeb naa ko trop pour ma dugg àjjana yàlla jëlaat sama njaboot teg sama kaw loolu mooy man du ma dugg yonent bi ne ko wa hasbuka an ta'muruhum bima ta'muru bihi nafsak doy na ci yow ni nga fexee ba baax li ngay digal sa bopp nga fexee sa njaboot yi mel noonu est-ce que ñun ñu ngi ci loolu xoolal ni ñu découragé tey suñu doom yi ñoo gën a xam série télévision yi film film yi démb dama dajale kii ñi ngi ni toog di leen jàngal ci saal bi ma lim loo leen juróomi nit ñi baax ci Sénégal ci jamono bii ah waxuma jamono ñu paas ñëwu maa ngi ne yàllaa ji Maalik ak Sëñ Tuubaa man leen ñu paase rek ci jamono bii li ma leen ma rek juróomi xalifa diine ñi toog ci la bokk mënuñu ko indi ma teg 1000 francs mënuñu ko indi fii di lim ñett ñett la ñuy wax man leen des na buñ bëggee wax oustaz Seydou li man leen boobu bokk ci oustaz diw man leen bokk ci ci ñu mag ñi laa wax ñii dund nii ñu am problème man leen waa léegi nañ bàyyi noonu ate bismillah équipe yi nekk Europe équipe football yi nekk Europe ah ñu commencé mil milliard ak yo ci fii man ñoo xam ne xaw ma sax existé woon lañ ci àll ku nekk indi ma trente personnes dañoo indi ba indi remplaçant yi. katastrophe loolu baaxul bu si mën a la yéen xamu leen nitu diine yi ngeen dëkkal ngeen di xam ay ñooñu nekk fële ci àllaaxira nga xam ne amuluñu islam benn njëriñ moo waas leen ba ñu sax te xamuñu ba may def loolu dama leen doon piéger loolu la ñuy fexe fexe suñu doom yi am programme diine boo xam ne mbokk yi dañ koy jëmbat ci ñoom loolu nag bu ñu koy defee mooy bi sarhi qadaaya diiniya bi suwarin basiita kay yumkin tifli istiaabiha ni ñu koy yób defee lu yomb la pour ay programme diine yu yomb ay seede ay waxtaan léeg-léeg nga invité benn oustaz benn kii ne ko kaay defal ma waxtaan ci nangam léeg-léeg nga def ko tome de formation léeg-léeg nga def ko lu nekk teg ko ci cassette bi seetaan léeg-léeg nga ñëw indi ko débat ngeen wax ci ba mu am finalité fu ñu koy yeewu voilà lu mel noonu ëllëg si biir bu xale bi demee ba gis loolu wala mu toll fi day yomb ci moom mu xam yan taxawaay la war a taxaw yan position la war a jël mais bu ñu bàyyee li dëkk bi di def ñun ñëpp ñu mel nii ëllëg si biir dangay wax sa doom kaay jaar nii mu ne la non waaw ko man vraiment fee laa bokk nga am problème bu dul jeex fekk yow la xoolal tey juñu bi ma nekkee boobu jàngaguma sax alfara mbokk daayiratul mustarshidin wal mustarshidaat ci laa xamee woon mbokk bi toog mun na ma seede daayiratul mustarshidin wal mustarshidaat dañoo am paa yi paa yi ak meer yi ñoo bokk daayira ñoo am ay mag ñoo am ay cadet ay cadet ñi nga xam ne ñun ñi ñëpp suñu doom yi foofu lañ bokk góor ak jigéen dañoo am ay tuur xoolal ñun mënuñu am loolu fi mu nekk nii ñun suñu doom yëpp xamante wuñ amuñu fu ñu bokk kenn du leen gis même suñu programme jeunesse féminine dañoo am problème suñu doom yi jigéen yi mag yi bokk ci parce que ñoo bàyyee ko parce que ñoo jàppul seen dox c'est parce que ñoo leen wanul le lii c'est parce que amul ci benn formation ngeen defa ne formation bi amoon keroog bi yonent bi di gàddaay jóge këram ci naaj bu tàng bi dugg kër Aboubacar ne ko génneel ku nekkul ci kër gi yonent bi lu ñu namoon ci wax jooju ku bokkul ci fam bi bi na génn Aboubacar ne ko ñëpp fi lañ bokk yonent bi toog ci digg kër gi di leeral ne ko damaa war a gàddaay xale yi toog di géej di dégg yéen ñi jàng siira su ma juumee ngeen gàgganti ma est-ce que keroog yonent bi dafa ne dafa ne Aboubacar non xale yi ñoom après na nga leen def naa nga mag déedéet xoolal xale yi bokkuñu yonent bi Aboubacar la doon waxal bi mu paree ñoom ñaar ñu départ xale yi xam ne ñoom am nañ ci responsabilité asma dem uti lekk bàyyi ba xaaja guddi muy xuus màkka lënd mi soo demoon tey màkka ñu ne la fii la yonent bi làqu woon ak kaar bi li mu daw ba yegg sa yaram day daw ak màkka septième cinq xoolal xale bu jigéen bu ndaw bi mu demee ba yegg Abdallah rakka moo jël xar yi jaarale ko foofu ci lëndëm gi dem ba ca buntu ba Aboubacar bàyyam génne rat ñoo am lu ñu naan waaw ñooñu ban formation la xoolal ba bët setee Abu Jahl ñëw ci kër gi di espionné ana yonent Asmaa ne ko gisuñu ko daf ko pes ba nopp bi xottee mu ne ko danga may rey rek waaye gis ma leen xool xale yu ndaw yooyu def liggéey bu rëy boobu est-ce que ñooñu ngeen defe dañ leen bàyyi nii rek ci bedd yi ñuy lambar lambari non dañu wax ak ñoom ñooñu dañ leen yedd ñooñu dañ leen wax yéenay ñan fan ngeen bokk ak li leen war ak li leen warul kon mbokk yi fokk ñu góor góorlu delluwaat xoolaat suñu bopp pour sauver suñu doom yi wallahi buñ jógul depuis léegi suñu dem ba ci kanam ñun ñëpp danañ jooy loolu ñun ñëpp laa ko ñun ñëpp laa koy wax sama bopp laa koy jiital suñu jógul depuis léegi bu gis ngeen dëkk bi fi mu jóg su ngeen jógul depuis léegi ku nekk jéem a sauver sa doom bisa ngi ñëw di nga mere ku la deful dara fekk yow yaa bàyyeeku am dañoo bàyyeeku ci suñu njaboot yi fekk warul war di jàpp seen loxo di leen yóbbu war di wax ak ñoom dama am benn mbokk su xëyee di jàngi day yóbbaale ñaari doom dafa bëri lu muy nuyoo nag bu ñëwee asalaamaaleykum xale yi ñu garaaw lañ ñaari xale yu góor suñ gisee suñ gisee ku def bopp neen nuyoo papa ji ñu ne papa kii sa lan la mu ne kii dama koo xam ne rek waaw su gisee ne ku am diine ku kii mu ne asalaam kooku ko nuyoo mu ne papa kii rek kii sama xarit la ñu ne ah sama xarit la waaw gis nga benn bis papa ji dajeeg benn mbër bu tudd Rambo ñoom xam nañ ko gis nga école bi la si indi ko ah oustaz naka def faay ah jaajëf faay kërti kërti ñu ne papa kii salal la waaw xaw ma ko de kii de fii def la mbër la parce que nga rek ñemewul wax sama xarit la ko ñu ne ko ah yow yow yaa ne mbër baaxul nga xarit mbër gis nga maanaam loolu la ñuy def da ngay fexe ñu baax ñi nga xamal leen seen njaboot télé am na ci kër yoo xam ne xale yi duñu seetaan dara même bu fa seen papa nekkul lu bon bu génnee ñoom ñooy ñëw fay parce que dañ leen xamal ne ñii lii baaxul dañ leen xamal ne ñii baaxuñu dañ leen xamal ne lii jaaduwul moo tax duñ ko xool te ku ñëw ci kër gi bu koo xool ñu bañ waaye bu fekkee ne yooyu ñun ñooy premier jaaxaan xale bi ñoo toog sale ëllëgal si biir lu muy wax nekk lii dara nekku ci lu baax la parce que fekk naa fii sama papa ak sama yaay di seetaan kon yooyu nañ ci bàyyi xel gis ngeen xale mbokk yi wax na ko sànq kayit bi weex tàll li ci nekk yow yaa ko ci def examen la rek bi ma judd lan la mën xale bi ñuy judd lan lañ mën dara dégguñu benn làkk yow sa làkk bi yaa leen ko déggloo ñu mokkal ko li ñuy def yaa leen ko jàngal ñu mën ko boo ko teeleen wax ne lii baaxul wala lii baax na xale bi dina teel a xam lan la war a def mu nekk ci lan la war a bàyyi mu def ñaareelu tomb mooy taawidu tifl alal aadaat alxasana ñu jéem a tàmbali suñu doom yi aada yu rafet yi yu baax yi ñi nga xam ne islam dàq ko ñu jàngal leen ko xamal leen ko ba ëllëg si biir ñu xam lan mooy aada bu baax ñu tàmb ko def ko pour parce que loolu day mottali day mottali seen jëmm day mottali seen mbir lu mel ne tasaare nuyoo ifsa usalaam nga ne xale bi deel nuyoo deel wax asalaamu aleykum wa rahmatullah bu dee góor la ngay joxe ñaari loxo bu dee jigéen nga ni ko bul joxe loxo deel wax asalaamu aleykum rek waxtiraamil kibaar nga ni ko deel respecté mag foo gis sa moromu bàyyi jox leen ñaari loxo nuyu leen respecté leen booy wax ak ñoom nga wax ndànk yu mel noonu la ñuy wax mais léeg-léeg nga jum dugg ci suñu benn kër yi suñu kër yi benn kër da nga yàkkamti ñibbi da nga ñëw xale bi di xëcc sa sikkim yow yow ah dana waaw ñu jënd boisson ñëw xale bi feet njëkk ñu koo naanal doo am jàmm parce que ñun la parce que ñun la te loolu lépp nag suñu responsabilité la bu ñu jàppee ne dund sunna moom pare nañ ci est-ce que léegi man am naa sikkim sama tuni bi gàtt la muuru naa terminé ay ndax suñu bopp yooyu ay mazahir kese la inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum ila alqulub wal amal dañ defar suñu bopp bu ñu defaree suñu bopp suñu doom yi defaru parce que doom ci papa lay xool wala yaay ñooñ ñooy ay idolam ñooñ ñooy ay premier royukaayam su pap su doom ji di gis papa ji dafa baax papa ji ndànk lay wax papa ji lu baax lay def fu baax lay dem lu baax lay wax ñu baax lay àndal xale bi dafa yomb nga jàpp ci loxo bi pour mu jaar foofu waaye bu fekkente ne safaan la lay gis yéen ñaar gu dégg bëccëg xaj ak muus yéen a ngi ah ak yeneen ak yeneen xale yi xale yi duñ dem kon mbokk yi nañ góorgóorlu ci yooyu fexe ba xale yi aada yu rafet yi ñu tasaare ko sa ñoom lu mel ne dëgg ci sooy wax was af sidqu fi l hadis wal ihtimam bi nazafa yooyu yëpp fexe ba xale yi di set ñu tàmmuloo leen yooyu aada yu baax yooyu lekk nday joor balaa ngay lekk nga ñaan def sa azkar wallahi buñ ko tàmbalee suñu doom yi ñoom ñoo koy waxante seen bopp ñoo koy kirikirte seen bopp kenn du ci dootu ci am problème te gis nga boo yaree xale bi ba mu ba mu miin yëfu diine doo noppalu nga noppalu nga da ngay nekk ci jàmm waaye bis boo leen tàmbalee yëfu saay-saay dootoo nelaw boo leen fexee ba ñu jàtt dootoo dem fenn ba sa xel dal fooy dem da ngay dénkaane ji ak di uti ku la xaar ci kër gi yooyu ay mbir la yoo xam ne doomu ndey yi mbokk yi nañ góorgóorlu suñu kéemtalaay kattan ñu jéem a teg suñu doom yi wax dëgg yàlla ci yoon bu baax bi. parce que ñun li ma waxoon sànq rek ñun musiba yi ñu jot a dugg ak erreur yi ñu jot a dugg suñu doom yi war nañu am sens bu ñu bàyyeeku bu ñu problème mu àdduna noot wala ay yëngatu wala ay xumb-xumb wala ñàkk jot ba ñu sàggane suñu doom yi. loo ñàkk ñàkk ñàkk jot utal benn waxtu ci kër gi booy toog di waxtaan ak waa kër gi ci diine utal utal benn dars utal benn waxtu utal njàng boo leen di def même bu nekkee ginnaaw julli fajar programme ko wala ginnaaw julli gee programme ko fexeel sax bis bu nekk nga firil leen benn aaya wala benn xadis wax leen li ci nekk ci ay njëriñ wax leen li ci nekk ci ngëm wax leen li ci nekk ci ragal yàlla wax leen li ci nekk ci lu baax ak bu fekkee day teral bon nga teral leen selon que yow yaay xool yaay xool problème dundin yi am ci biir kër gi nga ci def dars yi yooyu dafa baax au lieu sax ngay critiqué kenn def dara nga critiqué ko ba def na ko sa gër mel ne koo gisul bàyyi ba dars bi jot nga indi xadis ba ki ko defoon moom dina xam boppam soo léegi dina ko moytandiku waaw yu mel noonu mbokk yi dañu war a góorgóorlu suñu kemtal kentalaay kattan ak fexe yittale suñu doom yi ci set an nazafa fexe xale bi yaramam di set waaye yére mi di set wa taawid ala qiraati wal mutalaa ñu fexe encore ay waxtu yoo xamante ne da nga leen di toog ne leen liir leen jàng leen waaw jël sax dara benn paquet booba wala gina wala téeméer nga daal di teg nga ne dars bi ku ko gën a mën a liir soo ñëwee ma jox la ko su ko defee xale yi dinañ góorgóorlu seen kéemtalaay kattan ah tàmm yooyu mbokk yi ñetteel bi mooy taxiyati tiflu bil xub bi wala at wala xanaan fexe tamit ba sunu doom yi ñetteel bi ci ci la ñuy jeexalee ci tënk bu ñu war a tënk rek mu gaaw mooy fexe ba xale yi xam lan mooy bëgg lan mooy bañ di bëgg fexe ba xale bi ñu yar ci moom ak lewet ndax loolu dafa laaj ab xale di ko gis nga am na xale yoo xam dañuy judd ci violence nekk ay xale rek commencé yor ay paaka commencé di duuraate commencé di yor ay xeer lu ko waral mooy mbirum lewet mbirum yar mbirum nooy loolu lañ yarul ci ñoom lan lañ yar ci ñoom mooy dañoo judd rek gis ay mbëkk ak ay agressé ak ay tulli ak ay bule loolu lañ judd ñu dafa ne noonu la ku ñu jàpp bule la ku ñu waxal mbëkk am na ci booy yoo xam ne sax yaa leen ëpp doole waaye soo waxal ñoom bañ na la nii rek nga xam ne kii bu doon sa morom doo ko defati lu ko waral mooy ci milieu bi mu ko dunde la ci milieu bi la dunde loolu loolu nañ ko moytandiku fexe ba xale bi yar ak mbëggeel ci xolam alxub wal atf wal xanaan loolu nag fan la koy jëlee minal walidayhi kama yaxtaaju ila taam wa sharab xale bi ni mu soxlaa lekk ak naan noonu la soxlaawee lii loolu nan la koy amee mooy yenn saa yi nga daw ndeysaan mu ñëw nuyu la nga fab ko fóon ko fóon ko ndeyjoor fóon càmmoñ yenn saa yi mu kol kol bu rafet nga ne ko allahu akbar ah daal di koy song yenn saa yi muy xale bu góor ndeysaan mais yow bu fekkee loolu sa doom am ko ci yow day yaakaar ne affaire u mbëggeel amul fenn kenn warul bëgg kenn koo gis rek mbëkkal la tël sooy koy def sa doom day dem ba yaakaar ne xam na ne yow bëgg nga ko foo dem boo wàccee mu gàttandu la te bu lay gàttandu sax da ngay gis mu tàllal loxo yi di taw di ñëw ci yow waaye am na ci ñoo xam ne ci ñun sama waay yi wax dëgg yàlla ay erreur rek la ñuy def erreur yi xale yi nekk yëpp man du ma critiquer kenn sama bopp laa koy njëkki ndax man yaakaar naa ne ba ma nooyee la sama njaboot gi yàqu te sama njaboot gi bon ba ma nooyee la sama njaboot bon te dama ko seetlu ay temps yiñ naan boo gisee sunna da ngay kanna su dof ay temps laa wax doom bi ma njëkk a am ndeysaan boobu mbokk ibaad yi dañu am problème rek chaque jour dóor nañ kii bëkk nañ kële bi chaque jour sama kër day fees ay mbokk yu am problème sama doom bi mu njëkk am xale bu ndaw la benn bis ma wàcc ñëw rek sama soxna di ma nettali kenn ko am problème ko yónni ci kër gi wax ba pare rek xale bi ne ma papa ma ne waaw mu ne ma da ngay ut benn étage bu ngand nga indi leen ñoom ñëpp fii xoolal leen googu xoolal affaire boobu ma xam ne kii mu am na yëg-yëg ñii di am problème yëpp na ko buy tëdd danaan muur mais xoolal léegi pour nga muur leen problème la ñun la du kenn du xale yi de wallahi ñun ñoo tegg suñu tànk parce que boobu booy julli guddi yee leen booy dem conférence jàpp seen loxo sooy jàng jàpp seen loxo bu ñu ñëwee nga encouragé leen ah ñuy gis lu baax ku nekk bëccëg ci kër gi ay film islam lu nekk ba ñu arrêté yooyu lañu am problème ku nekk jàpp ne télévision bi mën na laa yàlla sa kër télé bi télé bi télé bi kër gu gën a dangereux mooy kër gu télévision Sénégal yi nekk nga xam ne nag chaîne yëpp la ñuy jàpp nga xam ne chaîne yi lu ñuy concours mooy kan moo gën a bon ñan ñoo gën a bon ñu indi leen kan moo gën a bon ñu indi ko programme bu gën a bon ñu indi ko léegi nag loolu nga bàyyi ko sa waa kër da leen di lëtëri te doom yi dañuy xëy koo na cee mu naan xool père gis nga waay xool bul dëgg ndoxam gis nga góor gi xool nga naan waaw du ma xam laay waxal ne mu naan la waay bàyyi xoolal yooyu yooyu wees na ak yi xew léegi nii ah non xale yi langage yoo xam ne sa yaram day daw kon yal nañu yàlla dimbali kii tënk bu gaaw rek boo xamante ne loolu laa doon boros bu ndax bañ a lekk asalaamaaleykum wa rahmatullah
kon dégg nañu waxtaan bi li nga xam naa bu ko ci soxla woon alhamdulilah ñu ngi sant bu baax a baax di ko ñaanal te kon dégg nañu li nga xam ne moom la doomu ndey bi sof ci waxtaan wi mu nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla daa mel ne ku fekkoon waxtaan wala sax daañu rek sof ci mu nekk loo xamante ni dafa gën a complet léegi waaye bu ñu dégloo waxtaan bi yépp daanaka liñ ciy gën a jàng mooy ndeke ne kii yar moom dafa moom la ñu war a njëkk waxal ba pare kii yaru foog nga yar ba yaru ba pare soo ko mën a yare ndax faqulu shay'in laa yuti yi koo xam ne amoo dara doo ko mën a joxe ne nañ bukki bañ ko ne seetal ko nay dafa seet ko amul dara rek mu ne ne laaj leen ko luñ ko laaj loolu la ko laaj di leen ko jox ndax amu ko kon bu fekkee